li ñu daje tey parti bi ñoonu sant ñu def suñu bureau commune moo tax ñu daje bureau commune yépp def nan ba mu des Mbàkke bi ma ñëwee laa dajale muy démb rek lan ko lan ko lan ko yëgle ñépp ñëw nañ ñépp teew nañ waaw nii ñu def nag lan fas yéene jàpp ba élection locale yi élection présidentielle yi ñëwaat ni ñu dóore woon ñu dóor ko ci département Mbàkke ndax ñun kat ay jigéen lan yoo xam ne nii góor ñi dañuy takk tubay waaye ñun dañuy takk suñu sër li góor ñi man lañu man dañuy dundalaat parti bi waaw ndaxte parti bi dina def tournée nationale des jeunes fii leen koy njëkkee ci département Mbacké loolu moo waral ne parti bokk gis-gis mi ngi dund bu ñu parte bu ñu paree it danañ def tournée femme les femmes fukki région ak ñeent dañ ko wër ndax élection locale yi Iba Gueye mi nga xam ne moo doonoon suñu maire Mbàkke à part Abdou Mbàkke Ndaw mi nga xam ne daf noo ba gañ par hasard ñoo ci topp waa APR topp ci PDS jël yi kon ñun xam na li nu am fii ci suñu commune Mbàkke waaw li nu am nag ñu ngi ko téye mosuñu rëcc ci benn yoon ak fas yéene fal nag it 2024 fas yéene fal suñu président Papa Diop mu jiite réew mi ndax am na dal ga am na xel ma am na teega am na yiw ga loolu de moom waa Mbàkke si ndax yaakaar naa ne ku nu fal 5 ans dollil la 2 ca mënoo wone na dara dara dara dara dara meeru Mbàkke def na ko ci Mbàkke ñun de gisaguñu am ñu bilan de fii ci daal le dep commune Mbàkke bilan moom amu fi bëri na Mbàkke amuñu hôpital Mbàkke amaguñu stade Mbàkke amaguñu sapeur pompier Mbàkke boo jógee Touba dugg Mbàkke comme ay sëg ah gisuma ko nag Macky Sall amul bilan fii amul bilan fii moo tax ñu gañ ko ci departement Mbàkke ci bu ñu ci delluwaatee ñu duma ko bu ñu ci delluwaatee ñu gañ ko li fi manqué bëri na xoolal ndoxum xorom mi ñuy dund ñeent fukki at sunu maam yi dee nañ ci sunu ndey yi dee nañ ci ku ci masaana masin dangay dangay dangay dangay crise ñu naan ah, ah, da dafa ah, meret mee yéeg ca xorom si la tension yi bëri na comme ñoom danoo dem ba Fatick ñu ne def nan fa natt nañ mètre cube yi war caa fay un milliard ak genn wàll waaye diggante Touba ak yàlla na 4 milliards ñu am ndox mu neex nañ ma xam ca dëgg cotisation bi nga xam ne ni ñun ñu koy cotiser ci état amul benn département bu koy joxe kon nag bu nu bu nu lëkk ci bu nu bu nu nattee mètre cube yi dana cher rek dana lii Mbàkke yelloo na am ndox mu neex yelloo na am mu neex nan ko natt muy 4 milliards Mbàkke yelloo na ko département Mbàkke yelloo na ko ndax Daaru Salaam gii nga xam ne day dëkku maam Cheikh Anta Gaawaan moom la sëñ Tubaa njëkk am muy këram bu njëkk sëriñ Fallou Mbacké fa la juddoo sëñ Modou Moustapha fa la juddoo ca dañuy fayam ndox nga dem Mbacké xewat quartier Mamor Diarra dañuy fayam ndox nga dikk Paaleen gii gor ngok sim seex jëmbu dañuy fayam ndox benn quartier ci Mbacké yëpp dañuy fayam ndox ca lépp ay këri diina lan yaakaar naa ne ah Macky de war naa changé waat ndax moom dafa mel ni dafa dafa dafa du muyu département Mbacké de man xawma lii lu muy